asalaamaaleykum gars yi nuyu naa leen daleen ak jaamu ci Sen Sport 221 dañuy koy ak match bi nga xamante ni di Paris Saint-Germain amoon nañu ko tey ji seen diggante club bi ñuy wax Kawasaki Frontale nekk fële ci Japon mu nekkoon match boo xamante ni nag neexoon na trop mu doxoon ci diggante ñaari club yi ñu gis kii di Lionel Messi dal di wane boppam dugal bi wu rëy waaye nag suñu sénégalais yi muy Gana Gueye ak ki nga xamante ni mooy Abdou Diallo dal di joué match boobule boo xamante ne ñoom ñaar ñëpp ñu ngi doon laam-laamee seen ak transfert ci ne Paris saint nga xamante ne dañu leen bëgg a li nga xamante ne moo ci yéeme mooy ki nga xamante ne mooy Gana Gueye moom dafa joué match bi mu jeex te mooy benn joueur ci Paris bi koo xam ne joué na minute yëpp ndax minute match bi am na ñoo xamante ni premier mi-temps bi la ñuy joué ñoo xamante second mi bi la ku ci mel ni Abdou moom dafa li nga xamante ne mooy ci second mi-temps bi maanaam euh, mi bi mu jeexee rek moom dafa dal di dugg ci second mi-temps bi li ci des yëpp moom joué na ko waaye Gana Gueye moom dafa door jongante gi ba mu jeex tàkk voilà Paris nag ñoo mujjee dóor ñaari bal ci benn mu nekk match boo xamante ni amoon na solo lool pour ñii di waa Paris gannaaw boo xamante ne ñu ngi ci pression ngir waajal seen bopp kon fi mu ne nii lii nii mën na wane ci ne xëy na gànn gi ak li nga xamante ne mooy temps bi ñu ko jox tey xëy na mën na wane lu dal xelu ki nga xamante ne mooy Christophe Galtier bi nga xamante mooy entraîneur bu bees bi amaan na mu des foofule comme ni nga xamante ne loolu la ko bëggee mooy xeex li nga xamante ne mooy place am ci club boobu di Paris Saint-Germain gannaaw loolu ci transfert ki nga xamante ne mooy Luis Suarez moom kay di xibaar dañoo biral ne fi mu ne ñii di Borussia Dortmund ñoom pare nañu ko signé wala bokk fi mu ni ñii di Borussia Dortmund faw ñu wut koo xamante ni na moo ko war a remplacer ci saison bii lay gannaaw boo xamante tàmbaleeguñu ay fan rek lañ ko signé ci ginnaaw waaye ñuy jàpp ne dafa am li nga xamante mooy jafe jafe-jafe yu muy jànkuwanteel moo aju ci wàllum cancer sax la ñu wax voilà gannaaw mbir moomu le nag kii di Suarez mooy ki nga xam ne kii nii di Borussia Dortmund ñu ngi dafi pexe ngir jëm ko signé ngir euh, continuer ak moom ci saso bii di ñëw bu ñu sukkas na ko ci kayiti xibaar yi ki nga xamante ne mooy Jules Koundé moom fi mu ne nii jege na lool ngir am déggoo digganteem ak Chelsea wala boog ca Séville ak Chelsea ñu ngi waaj am déggoo ci ki nga xamante ne mooy Jules Koundé Jules Koundé nag moom gannaaw boo xamante ne moom euh, li nga xamante ne moo doon bëgg-bëgg mooy dem fële ca Barcelone waaye nee nañu ñii Barcelone ba fii ñu waxee defaguñu benn offre boo xamante ni teg nañ ko ci taabal ji waaye wax nañu ki nga xamante mooy Jules Koundé na ko bu mu yàkkam ko dal di rejeté ñoom loolu la ñu ko wax su ko defee ñoom dinañu mujjee ñëw daal di ne nii ci Chelsea moom xaarul loolu am déggoo ngir war a a mooy Jules Koundé kon nag amaana li nga xam ne moo daloon Rafinha ak United mooy xeeñ fii ci diggante Séville ak ki nga xamante ne mooy Jules Koundé gannaaw boo xamante ni Koundé Arsenal bëgg Wah dem Chelsea ñoom it ñu ngi waaj am déggoo seen digënté ak Chelsea ñu xor ba xam fa la mbir mi di mujj ki nga xam tane mom lañ wax dina yer nekkon défenseur olympique Lyon di xibaari biral nañu ne fi mu ne jégena lool ngir signé fofu la ci Torino ci Italie mom nak nek joueur bo xamanteni nek euh, free agent la ndax contrat mak club bobu di Lyon jéxoon la wala ñent ati contrat nak lañuy sentu dina ko signé ak club bobu di Torino Torino nak la jaay seen défenseur bi nga xamanteni mom lañ wax Bremer ñi di wa Juventus lañu ko jaay mu nekkoon défenseur bu xarañ boo xamante ni saison bii ñu weesu moom la ñu tànnoon mu nekk défenseur bu gën a xarañ foofu la ci Serie A bu Italie Denier bii nag moom lañu ko bëgg a remplacer foofu la ca Torino te jàpp nañu ne dina signé ñeent ati contrat bu euh, médical bi nag ñu ngi koy séentu ci semaine bi la bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi. ki nga xamante ne mooy Marc Cucurella bi nga xamante ni Manchester City dañu koy topp bu yàgg ba tey kay xibaar bi biral euh, euh, ndax ñii di Brighton cinquante millions de livres xaar maanaam dañu koo seeral waaye ñii di Man ñu teg ci taabal ji xalaatuñu fay li nga xamante ne mooy cinquante yi voilà kon vingt millions de livres moo dox seen diggante te kay di nañu ne ñii di Manchester City nee duñu fay mukk cinquante millions d'euros yooyu Brighton di laaj fi mu ne daal bu fekkee Brighton bëgg nañoo déggoo ak ñoom fu ñu jaar dinañ wàññi li nga xamante ni mooy njëg googu ñuy laaj bu dee loolu amul moom di ñu mën a signé ki nga xamante ne mooy dégg nga Cucurella voilà ndax xalaatu ñoo fay cinquante millions d'euros yooyu la faw ñii di Brighton dal di wàññi njëg gi Barcelone gannaaw bi ñu joué match bi nga xamante ni seen diggante ak Inter Miami ki nga xamante ne mooy seen joueur bu bees bi lay di Rafinha gannaaw bi mu dugalee benn bal joxe ñaari passe décisif moom nag daal dinay xam ne ne fi mu ne nii dafa yàkkamte sax li nga xamante mooy El Clasico bu war a dox seen diggante ak Real Madrid ndax nee na moom sax li nga xamante ne moom la bëgg mooy dugal ci match boobu voilà moom yéenam yëpp mooy dugal ci match boobu euh, muy ñii di na ne ñoom sax a baax Real Madrid ci jamono yi la kon yàkkamte ne El a dox seen diggante ak nga xamante ne mu nga aju